kullu man alayha fan bakkan bu ñoom dund dina ñam dee mu doon situation boo xam ne nii tey ku ne dina si jaar waaw ambiance yi nii c'est très triste c'est ngeen ko noonu kom li ngeen gisee image yi noonu fii nga xam ne nii tey mooy kër Thione

وتصفيع أجمع يا نفس أدركت أمامي فادي مرابع خير الناس والنساء النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله

Oui, Oui, ça va Ça va.